ndax ñaari jours yi lu mu amoon noonu noonu moo tax après polémique kii mooy loolu suñu père la ay xale lañ ñun suñuy kilifa jox cër ba mu jeex taax mais grand théâtre déggoo ma sama doom bu ko wootee duy ko ba mu fees te déwén sax dafa anniversaire moom joxe fa ay manque wala ay cadeau mu ut ay manque ay cadeau. am ñu bëggoon créer tendance ci diggante bi fu mu xajul non affaire bi nu mu demee ñun avant ñuy commencé lañ jël benn photo bu ñu tëjee rideau yi. ay nit toog noonu ñu jël loolu capturé ko naan Bass Thioung bi lii Bass Thioung man kan moo gis vidéo Bass Thioung taxee di wax wala di woy foofu amul nit amul amul ah amul gis nañ lépp mais ama loo xamante ne boo si nekk sa di insté grand théâtre passé naa sax dafa passé man maa ngi ay sant ay mondial théâtre rek leneen ak man passé naa si yooyu bu ma ko defaat suba dama koy dem defaat avancé waat li ñu waroon def la def nañ ko mais daal ñi naa dañu bëgg ko bootante wala foofu di xeex. na ngeen dundee loolu ngeen gisee loolu. waay dara man ay ree la def ndax ñun def nañ li ñuy def mu naaj képp ku fa ne woon mooy loolu parce que xam nga lu garaaw ah. fii dangay ngay gis tey ji ñoo xamante ni ki la ñëw jàppale la mais dañuy toog di xaar pour nga am défaite quoi comprendre nga mais eh, non non man xale dañ maa bëgg nag eh, man dama dama xew dama xew bu ma see mu rafet su ma defee single mu neex suma ma kilibee mu neex ma sourire mu neex mais lu may tere fees la samay sama géeyul ci xew boobu noonu ci laay des